wax ji du bëri parce que jamono ñu toll nii jamono jëf la ñu toll tollatuñu jamono wax euh, li mu teg ci ndodd président Ousmane Sonko ñun en tant que nouvelle vision pour le Sénégal anduñu ci ndaxte Ousmane ku baax la Ousmane Sonko ku bëgg Sénégal la kuy xeexal Sénégal la kuy xeexal réew mi kuy xeexal dër bu la Ousmane Sonko dafa am mérite bu mooy patriotisme bi nekkoon ci Sénégal yi la yee Sénégal am jàmm soit Macky Sall dem te ñun Sénégal am jàmm la ñu bëgg donc vive le Sénégal vive le président Ousmane Sonko vive le peuple sénégalais vive la jeunesse merci beaucoup merci merci. waaw mbokk yi mbokk yi mbokk yi ah, s'il vous plaît il faut ngeen il faut ngeen nañu sinon ñun dinañ daanu. les gars les gars bu ngeen ñu may di dinañ daanu fii reculer s'il vous plaît. may ma ma def nii ah ma def nii rek teg tànk waaw dafa nga teg tànk waaw jël damay bañ a daanu de fi ma tax a wóorul. place de la République lañ nekk de temps wu gilet Dakar non non non walaay waa Marseille doon lañ démb de fii waa Paris dongul ak waa ak waa Champagne Ardenne ba rek Champagne Ardenne rek a fi nekk nag. na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem na dem. assassin Macky Sall assassin maa ko wax Antoine Diome Antoine comploteur. Allô, allô. Comploteur <laughs> eh lu mu ne merci bu wax dara yow xoolal ndox am naa am naa benn wéeruwaay quoi mooy teg sama loxo nii rek. Si vous pouvez montrer l'exemple, le Sénégal nous regarde. Le Sénégal nous regarde, les amis. Montrez l'exemple. Démonstrez à tous, hein, jos liir leen les gars wax nañ ba sonn place de la République Paris lii leen doon bañ les gars S'il vous plaît, descendez, descendez-vous, s'il vous plaît, descendez-vous. On descend, s'il vous plaît, on descend. On descend, on descend, s'il vous plaît, on descend. Descendez, s'il vous plaît, on descend. Descendez, s'il vous plaît. Jàpp leen ci ñu wax. Regardez ce qui se passe. Descendez, s'il vous plaît, on descend. Descendez, s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît, descendez-vous. attention. Abuse, abuse. On enlève, c'est ça Ok, ok. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est bon, c'est bon. Allez. Pour que ce soit visible. Le message est